ñoo ngi leen di liiral déclaration d'arrivée bi nga xam ni collectif société civile dina ko amal fii ci nga xam ni mooy situation room bi nga xam ne nar na ko def ci élection 31 juillet 2022 yi nanu xam ni élection législative yi nga xam ne Sénégal nar na ko amal suba di 31 juillet 2022 loolu mooy nekk quatorzième élection législative bi nga xam ne Sénégal ci taarixam mi ngi koy amal ba nu jëlee indépendance ba léegi muy élection yoo xam ni nag dafay wone maturité démocratique Sénégal ci wàllu élection élection yooyu nag ñoo ngi koy amal juróom benn weer gannaaw ba nu amalee élection yi nga xam ni moo doon élection territoriales yi doon élection locales yi ci wàllu mairie yi di élection yoo xam ne dafa am enjeu trop te bi biñ ko jàppee acteurs politiques yëpp tamit ànd nañ ci dëppoo ci moo tax mu nekk élection yoo xam ne dafa am enjeu lool am solo lool di déterminer tamit fa nga xam ni moom fa la jëm te mooy élection présidentielle 2024 ci loolu collectif organisation de la société civile bi nga xam ne dafay saytu élection yi di kos ànd ak dëppoo ak mandat bi nga xam ne moom lañ ko jox muy waree fam yi décidé na ci élection yi nga xam ne mooy élection 31 juillet 2022 euh, la mu ci décidé mooy déployer ay mission yoo xam ni d'observation yoo xam ne dañuy saytu élection yi fii ci réew mi yooyu nag mission boobu nag ñaari fànn la am am na boo xam ne mi ngi ko décidé ci court terme muy ci diir diir boo xam ne bu gàtt la am ci boo xam ne def na ko ñetti weer ci gannaaw muy mission d'observation boo xam ne ci diir bu gudd la muy long terme la mu jublu nag mooy fexe saytu élection yi saytu li nga xam ne mooy processus électoral bi ba lépp mën a leer jaar yoon nuy fàttali tamit mission société civile muy collectif organisation de la société civile ki ko jiite tey di sama naataango bi di professeur Babacar Gueye xam ne tey moom mooy président comité de pilotage bi moo ko piloté président comité pilotage yu programme ñetti élection ci loolu tamit comité boobu am na tam benn équipe boo xam ni de coordination boo xam ni mooy lëkkale mbir yi comité boobu mi ngi basé wu fii ci Ndakaaru am na tamit ci comité boobu juróomi coordonnateur yoo xam ne ñoom ñooy saytu mbir mi am ci tamit 46 yoo xam ne ay observateur lañu ay way saytu lañu ci délai boo xam ne bu gudd la yooyu yëpp ñoo ngi leen tasaare ci 46 départements yi nga xam ne Sénégal am na ko loolu doyul waaye daan ko complété par 791 léegi nag daf may xaw a tënk nag ci wolof bi niir mi donc loolu yëpp nag li koy mottali mooy 791 observateurs yoo xam ne jël nañ leen ci court terme mooy ci diiru élection yi rawat na ci bis ba observateurs yi nag yi nga xam ne mission bi jël na leen dana leen tasaare ñoom ñëpp ci Sénégal gi yëpp ba daanu am bépp loo xam ne donné la guy tukkee ci élection yi waaye itam day tukkee itam ci déroulement élection yi naka la demee ci gox bu nekk ci fànn bu nekk rawat na ci bureau bureau de vote bu nekk mission bi tamit ci ay disposition ay charte yi nga xam ne tamit am na ko teg ko ci charte bi nga xam ni charte africaine la de la démocratie waaye itam ci charte élection yi fii ci Sénégal na muy doxee ak ci charte gouvernance 2022 protocole boobu nga xam ni protocole additionnel dañ koy wax juddu woon 2001 euh, bu CEDEAO ànd ak cadre juridique bi nga xam ne tamit moo fi nekk tey di saytu amee wàllu élection amee wàllu ni ñuy organiser élection fii ci réew mi ci loolu yépp ci la tënku mission boobu nag dina def benn observation boo xam ne saytu goo xam ni bu leer lay doon boo xam ne tamit du ànd ak benn par parlo boo xam ne tam mi ngi koy def ci wàllu professionnalisme bu leer farul fenn nag impartial ci ni élection yi di tëddee ak ni muy doxee fii ak nin koy doxalee ci réew mi observation boobu dina aju ci élection yi nekk élection yoo xam ne yu jaar yoon la yu leer la yoo xam ne tamit comme ni processus processus électoral bi tëddee noonu lay tëddee dañ ko saytoo ni ñu seytoo processus électoral bi ci ni mu leere ni mu amee transparence noonu tam la ñuy saytoo élection yi mission bi depuis ñetti weer daanako mu ngi def liggéeyam ànd ceeg autorité politique yi nga xam ne ñoo ci réew mi ànd ceeg yi nga xam ne ñoom nooy yor élection yi ànd ceeg parti politique yi ànd ceeg média yi di journalistes yi ànd ceeg tamit bépp organisation boo xam ni ci société civile la bokk ñoo ñëpp la àndal di saytu processus bi depuis boobu ba léegi mission bi nag dina couvrir du Ndakaaru rek quatorze régions yi ci Sénégal yëpp na leen couvrir quatorze régions yi nga xam ne dañ ko découper tey ci quarante six départements mission bi na fa àgg foofu lépp ba ci 133 arrondissement yëpp 50 557 communes yëpp fépp mission bi dina fa dérouler li nga xam ne mooy observation yi nu fàttali nag mission bi mission collectif société civile fii mooy quartier général am fii ci Radisson fii la def li nga xam ne moom la ñuy wax situation room bi xam ne ci lay coordonné lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu élection yi ci ay données ak lépp loo xam ne ci wàllu analyse la ci bisu élection bi saytu yépp daana ko fii lañ koy amale donc nag moom situation room boobu donc structuré ci ñetti fànn wala ñetti chambre am na chambre technique am na chambre boo xam ne chambre d'analyse la am chambre boo xam ne chambre politique la yooyu yëpp nag li ko tax a jóg mooy saytu élection yi ci anam boo xam ne bu leer lay doon anam boo xam ne du am benn jiixi jaaxa du am benn parparloo mission d'observation bi nag ñi ko jàppale bokk na ci mooy am na appui technique NDA di National Democratic Institute ñoom noo jàppale mission bi ba mu mën a def liggéeyam waaye itam ci financement wu USAID ak ci soutien wu financier ñi nga xam ne mooy organisation internationale de la francophonie ñooñu ñoo jàppale mission bi tey financièrement techniquement bu mu mën a def liggéeyam saytu ko na mu waree nu wax leen ni bisu élection yi nag mission bi dina publier benn communiquer dina ko def ci diggu bëccëg bi bu ñu demee ba élection yi toll ci diggu bëccëg. dina def benn communiqué pour leeral askan wi ci déroulement élection yi naka la tëddee naka la doxe mission bi tamit dina def benn déclaration préliminaire boo xam ni bu gannaaw bu élection yi jàllee muy lundi le premier août dina def benn déclaration pour mën a gindi askan wi ci conclusion yi njëkk yi nga xam ni am na ko ci élection yi naka la tëddee naka la doxee lan moo ca am lan moo ca warul yooyu yëpp dina ko def leen di incha allah premier août 2022 bu mu di jotee dina wax tam ci déroulement élection yi waaye tamit dina formuler tam ay recommandation recommandation yoo xam ni yi nga xam ni dafa sooxe ci organisation élection yi yëpp dina ko saytu tënk ko waaye itam joxe ci ay recommandations boo processus boobu jeexee muy liggéey boobu yépp collectif bi dina def benn lu ñuy wax rapport final benn tënk boo xam dina ko def tënk boo xam ne daf koy yaatal lool détaillé ko ci ñi élection yi tëddee na mu amee ak lépp ba lépp mën a nekk loo xam ne lu leer la mission bi mu ngi informer membre yi. ñi nga xam ne noo ci bokk rawatina membre secrétariat bi ak ñëpp mën ngeen ko jot nag saa su nekk ci numéro yi nga xam ne mooy 77 734 04 moo xam ci téléphone la wala ci whatsapp tënk bii daal mooy tënk bi nga xam ne moom lañ def ci déclaration d'arrivée bi nga xam ne collectif euh, société civile pour les élections amal na ko fii wasalaam